thank you Néné yow xanaa déggoo ma lay woo. maa ngi woon ci waañ bi. ni nga ko fompee tey muy kole nii nag. fomp naa ko lan nga dugg. ceeb. yow lu tax ngay dugg ceeb. tey ceeb bu xonk la. eh ceeb bu xonk ak ceeb bu weex ceeb du ceeb. toggal bu vert. eh del def li ma lay wax ah. tey benn question ma la bëgg laaj quoi mais lu tax yéen jigéen ñi doo leen woor ba koor gi jeex quoi. Hmm. Hmm. mais te ñun góor ñi ñun mais ñun dañu matal 30 jours yi. Hmm. xanaa ñu gis baax. c'est-à-dire. ma indisposé. Ah, ok mais yow tey indisposé nga de. man. oui. man euh, xam nga nit dina indisposé te du ko yëg yow loolu la dal tey. déedéet indisposé gu ma de. oh indisposé nga tey. ki man la bay laa war a indisposé. acca ensemble. non kii la nene teel ndox mi. man damaa woo kii la. Euh, kër gi nii dàq naa fi ñaari mbindaan je pense loolu nekkul information bu bees ci yow. yow nekk troisième fois bi. ay eh, maman. deux heures jot na ba pare nga bëgg maa yàq sama kooku. te sax ma dem waa léegi lan la noo bëggee ma naan ndox mi. waaye moroon nga de bon par euh, tey dama bëgg benn mbaxal bu saf saaku loolu mun na nekk. nga ba pare nga xool ci ndugg bi fii lan mooy dem ci mbaxal bi nga yóbbu ko fa lu ci des je m'en maa ngi fii ci biir bëgg naa la xet gi dima dal nice am de. sama règle léegi nii bëggoon togg mbaxal. waaye boo gisee say règle da ngay mbaxal looloo tax nga dugg ceeb tey pour fas yéenee dund ci ndugg reer bi mbaxal ci. déedéet man léegi laa gis sama règle. dama ni mbaxaloo laa la wax. sama dëkkandoo yi di mbaxal mi di leen xeeñ ñuy defee ni sama waa kër wooruñu. firigo bi ubbi ko am na caagi rek soow nga lekk ko. tante man ñoom suukar aay ci de. eh tey di nga ci aay. ndax doo fi mbaxal yow eh yow sax dama doon xaar sax na nga indisposé du da ngaa gis say règle doxal benn atia doxal kaay doxal eh xaar nga ñëw eh Ousmane ana say yeneen yi. yaa yeneen fu mu ne dafa soo paree nga génn te ngeen jóg nag. yaay yi jëlal. na ko fóot ba mu set. waaw tante bi nag. eh togg ndogu bi ngay boole ak fóot bi comme woro soo maree nga naan. Eh. yow li ma la santoon anamu. fóot. mbaxal bi ma la santoon anam. waaw damaa dem di ko wax sa yaay mu ne ma naa génne yére ma fóot comme damaa gis sama rey ba. waaw mais mooy loolu ah man maa la sant mbaxal wala mère bee la ko sant. eh bu subaa ma taalal la ko. ay yow doo ma nga xam ne bu subaa naa la ko toogal yow ma sant la sama mbaxal gaan nga ñëw teg ay fóot naan ay sama yaay nee na affaire man dama lijjanti la maire bi wax yow. déggoo ma de mbaxal bi day pare tey wala nga pare ci gaale bi tey caakiri sow mi ngi frigo bi sa yaay ma ko jox. ay doo ma man nekk nitu caakiri sow man ah waaw soo fa waaw. déedéet Pape yow la moo taxal sa gémmiñ gi nii doo wax caakiri sow bi nga nga nga nga. nga doon dóor ah. non non ko de. mais yow lekkoo ko mooy lan yow yaa a fen sa gémmiñ gaa ngi nii nga ne lekkoo ko. non non lekkuma ko. waaw mais noonu. non yaay du dara du dara. mooy loolu. mais booy yow. mais booy yow man man ak yow xanaa bokkuñ ndey ak ah. ah. yàlla booy fils gars yi nga wax man naan ma la. non dëgg la ñoo bokk ndey ak baay. kon donc. kon la war a ngi lekk ci agression bi non non lekkuma woon man dama lekk. non déedéet non maman du dara taxawal yow yaa ngi tox di laaxatu waxuma ko sama yaay ngay yow ci yow yow. waaye yéen tox laa dégg. non toxuma de maman. eh mon père. tey bu zong laa lay. Ousmane. naam yaay. kookan la. sama papa la. yow eh yow laay xaar. Eh, yow damaa bëgg nga xool ma yow xam la laa lay yëgal su dee rusul tàgge du rus. yow yaa ñàkk fayda xam nga lu tax démb ci guddi waxuma parce que damaa xam ne waxu guddi day rey nit te yow sax nag damaa waroon a wax sax nag nga gaañu benn yoon wax ji jeex. yow weeru koor bi xanaa booy def lu bon di jaay caga ba weeru koor jot nga mën a régler ngay dem nga naan dañ lay maase ñàkk fayda te yor ay mag yi jëmm duma wax daak ku tëgg ni tama ñu tullee la ñaari boor yow boo ma jëndee woon sax ak ku baax sa jeeg bu reew bee ku perte kee ba mel ni ñetti dërëm yu juróomi nit di séddoo du dangaa mën a dem bay dem tey laa lay wan ni yow manoo dem foo jëm dangay jàng fan nga ma jëm lu sa yoon ci ma jëm yow démb ba ngay dem danga maa wax nga ma yaa ngi jëm te damay dem bu heure wuyu ma nee ne du ñu ndaw yow munoo maa bàyyi wool sa jeeg bi mu toog ci kër gi ni faaj defaral la nga ndaw bul dem mais yow naan damay defar yaram bu tas man kay defar naa yaram bu tas waaye kër ga tas na kër ga tas kay laa defar waaye yaram bu tas defar. réglé eh, loolu la sa xaalis dina jeex saa booy ñëw jaar salon yéen nii no nice. e maa mu. bu ma jëkk daal waaw oui ma mais da nga kóol nag dégg nga ni ma toogee nii bu ma laal bu ma laal damaa woor quoi. day maa woor ok kon loolu daal. wala dara yi toogal nii rek nag taxawal xaar maa ngi ñëw. instant nii ndogu léegi mu jot quoi. léegi da ngay ñëw ma gunge la cité bi parce que dañ ma invité ndogu foofu noonu nga demaale quoi dégg nga. da invité ndogu léegi man damay ah, ma ndogu ma ñëw toog fi ba heure bi heure ndogu di waaye jot ma invité ndogu yow. yow ma ne la ñëw ñu dund yoor yooru koor bi nga naan ndogu. léegi man dew ma fii lay ndogu. Ah, dëgg de. waaw ah, kon baax ngay dem de. eh nga sama yaay nii sol sa yére waaw. waaw yaa booy. ah yow kon da am gan. non kii wala man kii. Eh, waaw yéen kii du Rosa. man la naa la. maa ngi raw yaa ngi ci jàmm. naka seen waa kër. waaw foo jëm ni non yaay kii day ñibbi de dama ko doon gunge parce que dañ ma invité ndogu ci cité bi dama koy jaarale seen koñ demut fenn la demut. yow li ma lay wax ci leen nit ba tey duggul sa bopp bi yow amadu waaye man sa ndey ma jëfe ko wuy ma eggal ci biir nga toog ma ñëw ñu ndogu ba doyal. ah waaw. maa ko eh. eh kër yi nga bëgg a jàppee orphelinat tamit. yow man yàllaa ma bind jaboot ma ah. nangu ko. bu ñu aylee nga lax gi si wala may indil fii gis nga ko dama ci naan di noppalu ba nu ma neexee. dama changé yére xottee koo ndax ñu toog ndogu. ah, ah? duggal ci biir xaar ma ma ñëw. c' est ça eh, eh, kenn xamul la la. fan laa nekkoon ba heure xam nga pour lii génn ga du yomb. cool après ñu dégg ah. na ma woo de. allo. taxawal kii billaay du nga foog kii taxawal billaay.